asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax yéex leen di am mbégte saa ne dafa leen pour ñi nga xamante wax bi a sax jaawale un peu nii la mel nii xam donc mais huit mille francs lay yor nii la mel nii tubéy nii ak bu vert man am naa si blanc am na yeneen bleu foncé pour nous, donc am vert bi aussi tamit vert clair donc 8000 francs ak day pour nous, xam dañ ma disponible ballon original comme ni ma koy ça. au 117 352 31 01 donc wax information yi ne ko tay muy Barça bi CV dafa 1-0 mais Lamine fait un martyr la waa si bi andi dañ doon dalante euh, dans l'impact ils étaient là duel yi match bi ku ko seetaan xam ne duel yi mooy mais quand même Barça mérité na quand même victoire bo salaanee xam nga ça soit tu es pour Real pour Barça di nga xamné victoire méritée même si c'est euh, contre son camp xam de de Ramos malheureusement mais Lamine Yamal tamit bo bi il faut ñu wax ay mbiram je trouve que tactiquement équipe bu Barça dafa progresser quoi par rapport à l'année dernière c'est pas nak yow loolu ngeen gis par rapport à Cancelo bi fa ñew Joao felix ak li ma gis yenn boy yi xamante ñoo grève wu c'est pas nak nak noonu ngeen ko gisee mais man vraie progression la gis donc euh, benen match bu xamante amna c'est du côté de Ligue 1 française Nampalys Mendy enfin des titulaires te sax day titulaire temps yëpp xam nga donc tey encore une fois euh, am nañu victoire si benn stade stade Méno di stade bu ñëw Strasbourg équipe bu Abdou Diallo boobu noonu 1-0 c'était pas évident Wahibi, je sais que ne une histoire muy lance lance. jëlee ko fële ci Montpellier moo but n'empêche dans le milieu à côté de Andy Diouf il a fait son match donc euh, voilà donc c'est encore lu baax depuis que n'empêche ñëw fi une défaite parce que da ngay gis un dañu am match ni du côté de Séville dem avons gagné cette fois-ci aussi tamit ñu ñu amandam c'est c'est bon pour manager a jóge zone rouge bi jóge fait, jafe-jafe pour mën préparer son prochain match Ligue des Champions fële ca donc euh, champion fi nga teg sa tànk foofu la moom di Nampalys Mendy dañuy dem nag fele ci Arabie Saoudi ñu ay gaynde tay do nañ joué ñu do rek par Al Nassr Al Nassr bu ñom Sadio Mané Sadio Mané tay n'a pas marqué mais il a fait son match comme d'habitude hein. donc dans un match assez difficile bi xamantene voilà dañu mëne won 1-0 à travers euh, brésilien Talisca ñu égaliser 1-1 penalty pour Ronaldo Messi Cristiano euh, jël bal bi dëkk fele tay dama suuf bi pour man Sadio Mané moko ko yaa fu muy tëbee naan suuf saa nekk doo tey man quoi donc ñoom ñaar ngay gis ay gaynde on retrouve un bon Sadio Mané bu reetaan

Euh, maintenant nak tay di euh, équipe bu Neymar len do door 2-0 Kalidou Koulibaly titulaire Neymar defal ci planti mais après nak sur un corner bu nice mu centré euh, kii di Kalidou Koulibaly monsieur propre bu équipe nationale du Sénégal si ben tête bu nice Kalidou Koulibaly dugal but donc mu nek premier biom du côté des championnats Arabie Saoudite woon yoon équipe am parce que Milinkovic-Savic moo ngi fon woon Neves moo ngi fa Malcom mi xam donc ñoom ñëpp a ngi fa mais Kalidou Koulibaly moo leen woon yoon bi donc mu nek bi bu xamante contane détermination la ci am après nak ñu do 2 Aguero gis nañ match bi mu jeexee ñëpp di way Koulibaly Koulibaly donc bokk na si ñu mujjee dugg si vestiaire yi tellement stade bi ñëpp Koulibaly Koulibaly lañ doon wax donc mu nekk benn affaire bu xamante ne aussi tamit lu ñu mën a nemmeeku la tey si ay xibaar yu xamante ne am nañu ko ñu wax si kan Euh, Ismaël Assar, demain il est disponible le forfait demain il est a jouer peut-être en deuxième période on va voir ndax jours, nag day rek d'entrée euh, mais je pense que ce sera plus en deuxième période vu que contre Brighton c'est jeudi Ligue des Champions au stade Vélodrome Il Ndiaye sera là il est dans le groupe donc au euh, aussi tamit mën nañ wax concernant suñu Ismaël Assar, Bon yi xibaar kii di Cheikh Cheikh na wax si c'est un crack c'est un joueur du futur lu tax lu wax muy xel xel bi c'est un futur pour nangam nangam l'occasion jël bi parce que projet pour mu du côté de euh, du côté de Italie sélection sélection bu bu bu donc franchement am nañu une chance bu toutefois le dossier Cheikh Ndour intéressé ñu jeexal xibaar yi par naanaan dëgg yi ñii jër a tàccu ñii jër a defal lépp ñii jër a poste ñii jër a def statut mooy lan ñu tax ñi les sous ñoom tey malentendant tey ñoom ñoo jël 3-0 euh, fële ca coupe du monde bi xam ñu ngi koy joué qualifié quart de finale jàpp Arabie Saoudite dóor ko 3-0 après ñu dóor Argentine Thaïlande teg nañ si euh, ñii nii donc euh, suñu ñu gaynde yi franchement mérite nañu prise de respect ay seet maa lañ doon entraîné bi ñuy dem dégg naa sax aéroport ñii naan njëga njaay lañu jëlëb c'est c'est c'est honteux quoi pour la fédération moom ñaaw na rafetlu wuñu ko man sax d'ailleurs xam naa si kenn ko xamante ne euh, mooy kii kii laal tent bopp bi nii xam suñu dëkk bi fii dëkk baax ñi nekk benn jour boo ne ñu koy euh, euh, ñoom bokk ay nawetaan ñoom seen moo tax ñu mën a football xam ndax gars yi seet na ñii nii koñ seen i koñ ay nawetaan wala ñuy jouer ay match xaalis xaalis benn di ko dañoo a football comme ñii football professionnel moo tax ñu mën a football moo tax ku ñu jàpp fële moom dinañ la bétt Sénégal fi moom ñu paay football donc macha allah euh, def seen score ñoo ngi seen ginnaaw dinañ leen gën a taxaw incha allah ndam rek day baax mbokk yi ni mën a kon xibaar yi fii laa ko bëggoon jeexal en wax leen ngeen wax seen xalaat ak seen commentaire seen xalaat ak seen gis-gis ci commentaire autant pour moi ma jaajëfal leen wax leen ba beneen sur Senfootball TV